Salut les amis de Babo Show et de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée, merci de louer des likes, merci de louer des abonnés, merci également d'y <laughs> baisser les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois, d'y partager des informations, inbox sénégalais, fait pour les Monténègres, 14 régions du Sénégal, Rokhouroukha, les Gorgorad, Ninglé, Ndidia Djefel, Ninek également, qui est à l'hôpital et sécurité du Fabar, Yann Sunborom Fogsen Bok, Ninek Gam, Ninek Tchekasso, Yann Ramne aussi, erreur judiciaire, Guignol, Ndiaful, Monefo Yob, Sunborom Guédren, Feu, Delawar, Lensen, Ndiabot, Nidedouadouna, Sunborom Khalena, Djenef Daosi Gaël, et Yéhénou, en avance ensemble dans la magie de Baba Show et di Sport TV on continue face actualité donc Ismaël Spilissa bi nga bonne nouvelle pour lui Neymar mi clash Mbappé mais également Jude Bellingham mi Barça ak Paris Saint-Germain <laughs> loolu nous face fas yéene ko wasaare Yen La ak yéen le joueur de Lille dit Zegrova mon la ñu joueur du mois du côté. Que Ligue 1 française donc le joueur bi nga xamné mi ngi def mois bu exceptionnel avec euh, Lille d'ailleurs le club yu commencé di intéressé wu ci euh, kawam pendant ce temps du côté de l'Angleterre ñaar ñi a Nidale wax seen wax Watkins ak également Palmer euh, pour l'instant ñoom ñooy les révélations de la Premier League Watkins avec 19 buts Palmer à 20 buts ñu nekk actuellement parmi les trois premiers meilleurs buteurs de la Premier League ndax ki nga xamné moy Palmer mo ak ki di alors ñoo à 20 buts buts plutôt ki nekk seen di Watkins plus de victoires en Ligue des Champions équipe bi mooy équipe bi nga xamné ñu upp ay victoire ci Ligue des champions te jëlaguñu li nga xamné moy trophée bu ni mel mu ko gis ngeen ko muy Olympiakos mais ci kaw Arsenal mo fa nek Dinamo Atletico Madrid PSG Anderlecht Dinamo Zagreb ak Olympiakos ñoo nek ci kaw pendant ce temps euh, ki nga xamné nak moy donc ki di Juan Laporta ba légui mi ngi insister pour ki nga xamné donc Xavi da di tok du côté du FC Barcelone le président donc du club blaugrana jàpp ne Javi fi ne Xavi moom dem pour daal convaincre pendant ce temps insolite bi Moy, match Barça bi vraiment commencé. commencé ou <laughs> Barcelone yi dañoo jaawale seen euh, bus bi ak Paris Saint-Germain daal di koy jël song ko attaqué quoi. ah ko ah, donc mais heureusement heureusement donc mujj ñi ñen ñi mujj nañ xàmme ne bi su baax saa bi di pendant ce temps Bellingham mom nak conférence de presse dañ ko ko laaj avant seen match ëllëg yi euh, jëm ci Ligue des Champions bi ñu ne ko diggante Paris Saint-Germain ak euh, ki nga xam donc Barça kan nga bëgg nga kan mu gagner mu ne daal équipe bi nga xamné ne ah, nekul équipe bu corrompu ah <laughs> yalla na gagner mon dal mom fi ne li war a <laughs> coow li nag Barça ak Real yi jiijante ku nekk dans sa borop euh, morom da ngay da ngay corrompre ah da ngay ger donc Bellingham né na ñaari équipe yi ko nga xamné dal daal nu musoo ger ah wax <laughs> ko xam musoo ger yàlla nga dal di gagner dans les bénédictions di on a commencé du coow notamment du côté du club Blaugrana Neymar moom daal xamuñu lan mooy problème a Kylian Mbappé mais Neymar daal mere na Kylian façon mere boo xam ne gars yi jéggi na dayoo ba tax na fi ne nii lépp lu ñu posté daal ci li xam ne mooy donc Kylian ah. moom am benn publication bu ñu di tàgg ki daal euh, Mbappé kii nag di euh, Neymar daal di bind baba ovo de gringo ah muy maanaam daal yow daal da ngay mar ah stop daal ma ngoog ah bu ñu ko mënee daa yéen a kii bi loolu mar. ma ah, jëm ci clash ki nga xam ne donc Mbappé parce que moom daal xamuñu lu mu jotee ak Kylian Mbappé mais dinañ ci inay ay leeral pendant ce temps bonne nouvelle pour ki nga xam ne donc Ismaïla Spilissar bi nga xam ne gars yi gannaaw bi mu blessé toog temps mu bëri joué fi mu ne nii reprendre na entraînement yi avec l' équipe euh, de Marseille ki nga xam ne nag mooy donc Jean-Louis Gasset nee na kontaan na sur le retour euh, de ki nga xam ne donc Ismaïla Spilissar bi nekkoon si dynamique bu baax a baax on espère que ne dina woy nag di ci nekk parce que c'est un joueur assez important pour Marseille mais aussi pour le Sénégal et doon fierté lay doon mbégte lay doon ñuy gis suñu joueur yi daal di jouer ci seen i club gars yi di moo nekkoon c'est toujours un plaisir de vous servir De vous surtout de vous di et di la famille on se donne rendez-vous tout à l'heure après le match de la Ligue des Champions On se de yéen bon